kum junne ak ñaar téeméer ak ñaar fukk ci ay personnalité universitaire ak ñeneen fañoo tontu téeméer ak ñaar fukk ak ñaar ci ay intellectuel yi fi bindoon sàkku ñu bàyyi Ousmane sonk mu génn kaso ñaawlu démocratie Sénégal les ko yéen a kaay ne tontu nañ leen tontu lu saf sàpp yaaw fa ngay xool juróom ñett fukk universitaire ak juróomi recteur ak yi kilifa yu toll ci junne ñaar téeméer ak ñaar fukk fa ñoo ñaawlu yooyu nga xam ne mi tàkk kenn déggul leen kon buñ toog ba tey ñu ñuy rey naan def leen lii def leen la ak suñu démocratie fa deltu ginnaaw ba tax vox populi ne guerre ci ay pétition fi mu toll ni moo xam Sénégal ndax 1220 yii fa ñoo wax ne réewum Sénégal tey la suñu démocratie gën a taxaw gën a baax kon ñee di wax li ñu wax xamuñ ko la mu xam ba wax ñu ko moom docteur Diallo Diop mooy ne Pastef fa ñuy bokk ci wote 2024 yi moo xam Ousmane Sonko mooy nekk seen projet bi ci émission na docteur Diallo Diop kay fa wax lu leer nañ 2024 fa bokk te fa lañu xam candidat bu Sonko rek di keneen te gaañe nag fi mu ni fa ñuy ruumandaat ngir jéem toxal wote yi di hut aw lay moo xam fitna ja ca Niger rek waaye faa bëgg ñu noppal seen bopp wote yi kenn du ko randal fañ koy xamal 2024 Dakar Presse yéene kaay na ko seen waa ji Sonko tey mooy fanweere lu fan maanaam weeru yàlla mi ngi amal gerew de la faim xiifal yaaw fa ngay xool xay jega ñaalam fa ñoo jaaxle ci bakkanu usmaan sonk ndax ma nga ca diggante dund ak dee naka noonu ay awakaam waa yeewi askan wi ñoom ñëpp fa ñoo jaaxle tiit di artu balaa làmbaay ñaaw yoor yor yéen a kaay na leen Ousmane Sonko moom fay gën di nekk ci xolu sénégalais yi yaaw seetal fi mu toll nii ndaje mu am Sénégal ñaareel fa ngay dégg ndaw ña mbooloo mu bari di yuuxu turu Ousmane Sonko naan ko namm nañ la ah fa ngay xool match newetaan yi ci stade yi ak yu mag yi am ci gi moo xam plage yi la wala faneen fa ngay dégg ndaw ñu di way turu Ousmane Sonko nay leer laneen lu leer ba yegg ca naññi ja mooy ne ay bés bii ñu nekk nii bala moo jeex njiitiram Macky Sall fay dëggal Amadou Ba tànn ko mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar antenne yéen moo ko wax l'essentiel yéen kaay na ko ah man daal li ma xam mooy njiitiram mi moom ba léegi mi ngi wër capitaine am maanaam kan lay jiital Aly Ngouille Ndiaye na leen hëy faa leen di wax leen na njiitiram Macky Sall su ma tànnut kan lay tànn man maay nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ndax sama xel mi mënuma cee dugal laneen lu mooy loolu ba tax fa wax ne yëf yi dana waxtaan woom siq ak l'observateur ma ngi cay wax sax wàllu campagne bi nam ko nar a doxalee ak wàllu mbay mi Abdoulaye Mountakha Ibrahima Niass ca Medina Baye njiital mouvement Madame mel ni ko naan man d'accord ma président tànn laa tànn ne moo gën pour nekk candidat benn bokk yaakaar ma ngi ko waxee ci exclusif yéen kaay Maam Samba Ndiaye jiite parti bi ñuy wax m nekk doomu Saalum dëkk ca Ndofaan mel ni ko naan ko xëy faa lay xamal yow itamit lenn candidat bi gën ci benn bokk yaakaar man mii la Maam Samba Ndiaye ndax man faa bind livre wax programme ak fi ñu war a jaar ngir suqali réewum Sénégal ci xam xam-xam bu leer nañ te mi ngi nii le mandat yéen a kaay ñu ko xamal l'évidence yéen a kaay dëggal ko na ko Samba Ndiaye ndaje mu mag la xam ak waa partem ba ca Dakaaru ca la waxee ne la ba pare fa ko argumenté wax fa ko teg fa mu teg moom i tamit candidature muy Anta Babacar Ngom wax na ko ca laas yéen a espoir yaakaar ngir suqali réewum Sénégal fa war a jaar lépp fa ko faa wax beneen candidate Mimi Touré enquête yéen a moo xëy di ab adversaire am bu jàkkaarloo moom 24 heures yéen a kaay na Bamba Dièye moom fa mel ni candidat la de info yéen a kaay na ko bul fàttee Racine Sy mouvement am ba mu jiite ay farandoram fañ ko wax na ko munoo ñàkk nekk candidat 2024 ndax yaa gën ci réew mi <laughs> leer la neen lu leer ba yegg ca naan ñi ja mooy ne concert casserole tëggam bool yi nga xam ne Guy Marius Sagna ak ñam àndal fañ ko xoote woon ni ki démb fa ñoo lajj ba xalangu de maanaam sénégalais yi toppuñ leen ci tëggam bool bi ay délégation yoo xam xamante ne fa ñuy dem Touba lépp jëm ci màggal gi fa ñoo bari ba jéggi dayo laas yéen a faa leen ci wax benn Mansour Faye ak délégation ba dem neen xalifa ba dalal leen ñaanal leen yàlla Dakar presse yéen a fa ñoo xamal ne élection tànnum njiitum réew ba ñu amal ci réewum Gabon fa pare rek fitna ja jolli de xeexo yu métti ba tax fi mu toll ni fa def li ñuy wax couvre-feu ba pare fa ñoo coupé internet ba libération moom fa ñoo xamal ko ci géej gi maanaam na yegg buqee stade de Mbour ñaari a kaay a kaay na ko final boobu nag démb fa ñoo waxoon ne njiitiram Macky Sall fa cay dem waaye mujj ta dem de a a dem moom la tànn comme candidat am a kaay bi ne ak lu mu ci mënti doon njiitiram Macky moom nekk na président bu Sénégal ba nar na fee bàyyi ko mës ta fekkee final coupe du Sénégal l'observateur moom fa xamal ne cag-cag moto yi ndeke yomuñ ci yóbbu ay bagage léeg-léeg fañ leen di fay ñuy surwee jëkkëru jàmbur yi yaaw fa ngay xool fa am benn soxna fa fay benn cag-cag ndakaaru ngir mu di ko toppal jëkkëram ci la mujj xam ne ndaw si na man ci laa mujj xam ne saa bu ma génnee sama kër dem liggéey sama borom kër fay jël ab xale bu jigéen coroom yóbbu ko ci kër ga ñu nekk fa ñoom ñaar di def lu leen saf loolu sa doy waar libération na ko faa lay wax lu ko gën a doy waar téeméeri junne yoon donte loolu nag baaxut ndax sa jëkkër mënoon naa yóbbu xale bu jigéen ba faneen ba mooy seen kër waaye man lu doy waar li ma lay wax ab tooxi doona la gusto tooxi doona ya bunt ba ubbeeku na benn ñaareel daal moo fekk wujjam aawo tëdd néegam di nelaw moog nen na tuuteem bu xamagut xat rek ñaareel ba fa baxal ndox mu tàng ba mu bax rek mu ñëw juri ko sotti ko aawo ba ak doomam ja aay ba doom ja fi mu toll nii ma nga ca diggante dund ak dee seen yaram wa oh fa yàqu yaxet gendarmerie jàpp na ñaareel ba naka lu tax nga def lu bon lu ñaaw lii mu ne leen sama wujj muy aaw bii nga xam ne sëy ne bu fay la tudd problème yi may am man ak sama jëkkër yépp lu ji njaaga mooy moo ko sooke soode ñaareel ba faatu Fall la tudd waa ma ne boo déggalee sa jëkkër di def bànnee xam di def la la war yaakaar naa doo am ak moom problème de même buñ lay jaxaseeg moom sax moom du gis loolu waaye soo de sa xaawoo man de maa xam su fa doxee faatu wala doom ja faatu yow foo koy waxee wujje bokk wërsëg la wax naa ko ba sonn xam nga woy wu ñaaw dul fay ba na tukki nag